Assalamualaikum mbokki xalima Seydina Seck Mohamad bekk ak banex delu swat ak yéen sen interview exclusive tey nak ñu fi dalal ki di l'honorable député du Cheikh Bamba jité parti bu ñu naan FSD Benno Jubal bu ñu ko amé nak dinañu waxtaan ak mom ci li nga xamanteni mom moy projet de loi bi nga xamanteni fasiyene ko ci assemblée nationale le 19 bi ñu jubal ana la mol laqatu ci ginaaw loi bobu tungu ne nag du tew ñuy natal na lo xam-xam demba ma demba gën la xam demba l'honorable député ñu ngi lay nuyu dala dalal jàmm fii ci xalima point com. maa ngi lay sant di la bu baax hmm. euh, wax naa ko léegi ci tàmbale bi euh, li nga xamante ne moom mooy loi bi ñu fas yéene euh, foofu ci assemblée nationale d'abord lan moo nekk ci biir loi wa lan moo tax ngeen bañ ko ngeen bañ ci ànd. waaw Seydina da nga may permettre rek ma def tuuti rétrospective ndax am na juróom-benn at ci ren jii. Ah. loi bu mel nii la ñu indi woon assemblée nationale pour lan. wëlbati li nga xamee ne mooy procesus bi ñuy tànnee président de la république nga xamee ne constitution bi def ci àddu ba mu leer naññe. Hmm. jamono yooyu askan wi yëpp ñoo jóg taxaw. ñu hmm. du ci dal. te noonu la ñu ba ñu am ca ndam gu rëy. Hmm. ki ci gënoon a mooy Macky Sall ndax moo ca nekkoon président la république. te wolof nee nag ku ndëbënu rey sa foo gisatu lu ñuul da nga war a daw. moom moo amoon pour njukkal askan wi.

foog nga indi un pour électorat bi mu xaw toll ci soixante dix électeurs hmm. dafa di lo xamé ni ben jamono ji mu ñëwee méngoowu la disposition yi nga xamé ni moy suñu disposition wu constitution hmm. ñaarel ba it dafa ñëw ci lo xamé ni dafa di loi constitutionnelle lo xamé ni ci référendum nga ko waron def wala bok bu nekkulé ci référendum ñi ko seq yëpp. Hmm. muy ñoñ politique yi. Hmm. di société civile bi dañ cee war waxtaan waxtaan wu yaatu ba déggoo ci. Hmm. te yooyu yëpp amu ci dara. te it loi bi li tax mu doy waar. mooy dafa di loi mu jëntulu loi bii mottalee caay caay bi nga xam ne moom la Macky la tàmbalee. depuis ba mu décidé ni élection présidentielle yi. keneen ku dul ku ko neex. doo ci bokk keneen koo xamee ne boo ci bokkee. xañ kandam li dina la éliminer. keneen koo xamee ni. Hmm. bu yakaar na ni boo amee possibilité taxaw. Hmm. mën na dem deuxième tour mu jéem a seet nu mu la jaaree sàkk génn la ci. Hmm. ma bëgg a jaar laaj askan wi nag. ni est-ce que mën nañu nekk ci démocratie boo xamee ni. kenn si suñu biir di candidat comme ñeneen yi day am sañ-sañu ko si biir loi bi. wëlbati suñu constitution pour mën ko permettre. mu mën a jàll au premier tour sans aucune possibilité hmm. de recours hmm. et lii moy fondement wu loi bi te bu te nag xam nga gis nga li gëna doy war. Moy hmm. ñom suñu lalé tay tay. dañ koy indi ak ay dañ koy jëm expliquer diw ko bër bo xamé ni ay diw bëru tapalé rek la ndax nee dañu bëgg fexé ba nga xamé ay candidature fantaisiste bëna am mais élection législative yi kan moo indi candidature fantaisiste <laughs> doy na war am na ci candidat boo xamee ne bi ñu ko gañee bi ñu ko gañee bi ñu ko gañee dafa ne man kontaan naa ndax samay xarit gañee ñu kon ñooñu président de la république moo am pour fayal ay candidat pour ñu bokk ci ay candidat hmm. pour ñu bokk ci ay élection ndax ab opposant bu jógee taxaw war a dem ci élection hmm. xam nga ni moo koppar ya mu am ci boppam la koy def du ko jël di ko jox keneen hmm. loolu dafa war a leer aussi ñaareel ba aussi état mënul wax askan wi ni damay def économie ndax bu doon def économie du ñu fowee ak folklore ba métti bu ñu nekk ci réew mi du ñu fowee ak alal bi ñuy jël di ko caaxaane ak di dugal ci ay tappale bu fekkoon te économie nationale moo ko intéressé du jël plus de mille quatre cent milliards may ko ay entreprises étrangères donc seen taxawaay méngoowul benn yoon ak li nga xam ne moom la ñu bëgg mbubboo pour ëllëg dugal leen ci processus boo xamee ne bu sottee mooy la fin de la démocratie au Sénégal yéen yéen lan moo leen di déranger lan si projet de loi bi 65 euh, 000 signatures da ngeen kaa mënul am wala wala wala lan moo tax mais non la question du question wu 65 000 signatures c'est-à-dire que ni xam nga li nga war a xam mooy ah. tey jii lan moo war a tax ba Macky Sall indi lu bees yi te du lii du lu njëkk lu mu indi ah. xëy na suba jël Karim Wade Ah. xaw ma def naam deful mais kenn mënu laa wax lu tax Karim Wade génn réew mi kenn kenn kenn. ñaareel ba jël na Khalifa Sall ni ko ràpp ci kaso bi. Ah. jël xale Khalifa Sall di ko ràpp ci kaso bi. Hmm. ñetteel ba ay procès yu dul jeex ak ay tentative ki action yoo xamee ne bii ci ci ci hmm. ci carte électeur yi la jëm bii ci processus électoral bi la jëm bii ci xeetu déstabilisation yoo xamee ne. Hmm. lenn rek rek rek rek mooy fil conducteur bi. boo ko taqalee ak loi parrainage bi di ngay xam ne kon kii ndekete. depuis ay at a ngi nii lenn rek lay liggéey fexe ba bu élection présidentielle jotee. mu wéete élection yooyu. pour mën a jàll au premier tour. mais loolu balaa ñuy naan ndax mën naa am mën naa am am signature am déet. Hmm. du loolu problème bi du foofu. Hmm. problème bi mooy dañoo nekk ci compétition. Hmm. bokk ci réew mi yam ci képp. te Sénégalais yi dañoo war a bàyyi ñu bëgg rek tey jii rek mooy la parenage rek moo xew mais dañoo war a analyser liñ fi def yépp si juróom benn at yi. dëgg la depuis ba nga xamee ne dugal nañ ci référendum bi pour nga comprendre. danger bi nga xamee ni ak dangerosité bi nga xamee ni loi bi sur le parrainage ànd na bul jël loi bi sur le parrainage rek teg ko fale ni France def na ko nangam sangam def na ko. Hmm. waa ñun ana suñuy carte électeur waa ñun ana candidat yi nekk kaso waa ñun ana candidat yi ñuy génne réew mi waa ñun ana candidat yi nekk ci biir réew mi ay procès topp leen hmm. ana waa ñun ana candidat yi nga xam ne dañuy nekk ci biir réew mi ñu leen di padd ak di leen galgal hmm. boo ko booleeg loi sur le parrainage da ngay xam ne ay kii lii mooy le fil conducteur aujourd'hui dafa bëgg dafa bëgg déstabiliser suñu système politique. Hmm. génn ñu ci démocratie. te nag dëgg dëgg dëgg bët bu suul dañu. dëgg la mënuñu ko jàppale moom mu profité si suñu xare ñun askan bi yëpp ba mu doon président de la république mu daal di koy taxaw ba pare rek daal di léegi si la fin de la démocratie. Hmm. day mel ne picc bi nga xamee ni dañoo génn suñuy donc ñun ñëpp. Hmm. jox ko ko ngir mu mën a naaw dem ci kaw garab ga. ba tépp saako bi ki suuf ñëpp jot si mu dem ca kaw. daal di toog ca kaw garab ga. di lekk de temps en temps mu nefere sànni ko suñu kaw. dëgg la et ça ce n'est pas lu jaaxal nit ñi mooy arrêté Ousmane Ngom bi nga xamante ni moom moo leen war a tënk ngeen àgg ci assemblée nationale ngir mën a xeex ñu bañ a voté loi boobu nan ngeen fas yéene def. waaw mais amul arrêté bu war a tënk kenn il faut qu'on soit sérieux hmm. les lois hmm. dans ce pays. Hmm. lois yi ñuy tabax pour askan wi la. pour que ñu yam pour que ku nekk am sa àq ak sa yelleef. waaye loi boo xamee ne day arrêté doomu aadama ci ay àqeemam yelleefam daf koy tënk yeew ko def ko jaam loi boobu kenn mënta muusa waande ba ñu opposé ko benn askan hmm. il faut que sénégalais yi xam ni nit ñi nelaw gañ doon nelaw yee nañ leen ca seene gama seene woon sa bopp sa première fois ba dinañu sa ñëw tey jii la fin des temps jusqu'à la fin des temps hmm. ku fi indi ku fi indi lu mel ne loi boobu même traitement lañ la war a defal waaw est-ce que est-ce que tey wax wax nga léegi sax njortu est-ce que tey njortu nañu euh, Cheikh Bamba Dièye dem ma ne est-ce que njokkuñu njortuñu tey Cheikh Bamba Dièye débat yi waay boppam comme ni nga ko defee woon le 22 juin wala wala léegi ndaw màgg na mais mais non du question ndaw màgg na du question yeewaat sa bopp déedéet hmm. Dakar du saf ñaari yoon jàngale benn yoon leçon benn yoon du koy tëri hmm. nit ñi jàng ko teg hmm. ko ko te nii réew mi ay nit njaay ñoo fi nekk ay xaleel nekk ñu fi ay dof nekk ñu fi leçon bu ñu ko joxee dafa war a doon une leçon applicable ad vitam aeternam. Mm. waa jii def nañu lii lii lañ ko ko fayee. Mm. keneen ku ko ti tamit lool lañu lay fayee point barre. Mm. parce que même condition yi. même schéma yi. même artifice yi. maanaam benn waay joo xamee ni xool na ay sondage xam ne tey jii dara mbaaxatul. mu ne nag léegi naa sàkki pexe. naa dóor martu naa teg diil naa wëlbatiku naa fen ànd ak ay naa fexe tapalekat yoo xamee ni. wóor na ma ni. seen loxo setul ca la nga xamee ne moo doon yàq gu njëkk nga xamee ne yàqoon nañ ko ca constitution bi ndax tey jii ak euh, Seydina ah. boo fekkente yow boroom xam-xam nga hmm. xoolal mode d'écriture bi nga xamee ne loi wu deux mille am na ko ak inspiration bi mu amoon hmm. ak nga xool mode d'écriture loi bi ak inspiration bi mu am ñu hmm. mettre ma main au feu que seen inspirateur benn lañu wala seeni ay bindkat benn lañu donc dafa am ay nit ñoo xamee ni gëmuñu yàlla réew mi intéressé wu leen dëgg la mais na mooy li saxal ñi mooy euh, nee nañ nee nañ dafa am benn. lenn rek moo leen ñor lenn hmm. lenn lenn rek mooy ñor lu ñu maq lu ñu mos lu ñu def seen poos hmm. te nag benn benn benn doomu aadama du fi fuuy fuuy fuuy ci mi ba bëgg laal sa jaay-jaay boobu ñu ànd seen yow. Hmm. loolu dafa war a leer aussi. na loolu c'est en direction de chaque citoyen. naka nga jàngatee ñaari sorties yi nga xamante ne moo génn bu bu Aminata Tall bi euh, Aminata Touré ancienne euh, premier ministre ak bu Mambay Mambay Niang. di ministre du tourisme. non xam nga gis nga gis nga gis nga mbir yi moom il faut que ñu bañ a def dilatoire di toppatoo loo xam ni loo wër mbir mi la nañ dem ci mbir mi. Hmm. tey jii Massamba ak Mademba ak Modou Coumba ak Paate wax nañu man intéressé hmm. man li ma intéressé mooy la survie du Sénégal li ma intéressé mooy sécurité wu Sénégal li ma intéressé mooy. Hmm. suñu démocratie comme xam naa. mal bi fan la nekk. comme xam naa kan mooy cause. jafe-jafe bi. Hmm. là où le mal est foofu laay dem taxawi. Hmm. le reste ça ne m'intéresse parce que kenn du ma perte loo sama temps man kenn hmm. du ma perte loo sama temps te tey jii farata bi. moo ñu fexe mobiliser wu. reyante ci biir Ndakaaro rente ci biir dëkk yu mag yi nekk ci biir Ndakaaro. reyante au niveau de la diaspora dans toutes les ambassades. te maa ngi ñaan koo xamee yaa ngi nekk si diaspora bi tamit na nga ko def sa farata. parce que enjeu bi moo di tey bu ñu ko bàyyee mu jàll. dinañu jël suñu alal sédd ko ay jaambur ñu dem seen yoon bu ñu ko bàyyee mu jàll kenn dootul yamati si mi bu ñu ko bàyyee mu jàll ñu amati di am dootu naan dañuy dem élection parce que c'est à peine perdu hmm. te nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nag où qu'on est des citoyens de ce pays hmm. nekk ay patriotes wala ñu xam ne ay étrangers lañu bu dee loolu la Sénégalais yi bëgg na leer dëgg la na leer parce que tamit ndimbal na sa fekk loxol borom. dëgg la <laughs> te nag bu ma kenn wax affaire politicien bu ma kenn wax affaire politicien man taluma politicien. Eh. waxuma élection waxuma fal waxuma remplacer ma Samba ak ma Demba dama ni. Eh. condition yu ñuy tànnee askan wi li ñuy tànnante suñu biir. Eh. rek li ñuy imposante suñu biir dafa war a leer nañ ñëpp doon dumbadu wala ñëpp doon. leer na leer na leer na sa kàddu gu mujj ak ban appel ngay lancé. sama kàddu gu mujj hmm. moo besoo mi nga xam borom moo koy fayul boppam. Hmm. te pes wi nag réy na ba bëgg a tas suñuy bañ yëpp. Hmm. te suñu ko bàyyee ñàkk na fayda ñàkk fayda goo xamee ni. Hmm. ay sëriñam ñu ngi sa bitim réew ay tubaab lañu gëmul gëmul gëmul dara dara dara loo xamee ni nekk na si réew bi te seen cooki bi ñu doon cooki barki war naa wan delloo si xelu sëriñ si <laughs> ñu xam ne bu ñu yaakaaree ni ñii respecté nañ leen dañ di ñoom tamit ñu bàyyi li ñu nekk te dellu féeteeg askan wi. xam ne dañu am cër ci réew mi. cër boo xamee ne bu jafe-jafe amee seen baat dañ ko war a dégg. dëgg la ndax bu nit ñi amee koom-koom dañ koy yëg ñoom. bu nit ñi amee alal ñoom dañ koy yëg. kon bu nit ñi amee jafe-jafe jaru fee daw te bu ñuy bu kenn defal nag yaa gën a muus nit ñi. parce que ñun xam nañu ni. ab sëriñ mën naa jël benn posture moo di que ni man xam naa ne ku ñëw dina jëflanteeg moom. Hmm. dina jëflanteeg man kon lu fi mën a ñëw sama yoon nekk si. kooku c'est une position défaitiste. Hmm. c'est une position irresponsable jaaduwul ci réew mi surtout bu la yàlla sampee nga jiite askan bi hmm. war leen wan yoon ci diine te diine du wàllu alaaxira diine wàllu addina la li may wax jëm askan wi yëpp mooy que beneen réew warut a gën a gore Sénégal hmm. te nit ñi di bañ yeneen la gor yi di bañ ci yeneen réew yi waruñu koo mën a accepter parce que lii am ci démocratie mag àll liggéeyaluñu ko hmm. daf ko fee rek te ba mu tàngee ba tàng ba tàng ba tàng dafa daw ceeku te xëy na rocceeku bu mu rocceeku moo tax déggul daaj déggul li nga xam ne moo doon njàngale gu nit gi nga xam ne ni le vingt et un le vingt deux ak le vingt na ko ci réew solo wuute ga mu wuute woon ci engagement bi moo ngi topp ba tey jii et la à à l' information des Sénégalais mu xamal leen que ni la démocratie démocratie combat perpétuel la. doo ko jël benn yoon rek ni xeex naa ko jeex na da nga koy xeex am ko ba pare xëpp say ba toog faram ko laay yow kilifa bu la nga fontoog ni ko kër tell ci ndodd li xam ni yow doo moroomam doo ab surgaam demul sa mu sa mu maase mu fekk ñu ñu la yeew la fa di la mu jënd la. am na solo et député ñu koy gërëm di ko sant mu nekkoon euh, kooku di Cheikh Bamba Dièye jiite parti bi di FSD/BJ nekk député ci assemblée nationale yéen tam mbokk yi ma jox dig daje ba prochaine fois si beneen numéro ak ci beneen kan jërë ngeen jëf.